dommage euh, ci histoire euh, euh, politique gu Sénégal ci histoire médiatique gu Sénégal aussi comme ni ngeen ko waxee Moussa Bocar Thiam moom vraiment. yaa ngi tudd peuple bi ah parce que des fois aussi des fois des fois dafa mel ni que léegi peuple bi moom dañoo jël li ñuy naan benn rendez-vous dafa jël dañoo jël léegi benn baat boo xam ne léegi dañoo abonné man dañoo désabonné ci lu bari ah. Mm. parce que c'est la première fois ñu jalgati constitution déggoo ci peuple déggoo ci peuple bi ah. Mm. te j'avoue que démb moom député yi nga xam ne ñoo nekk ci opposition bi joué nañu seen rôle. wan nañ ne ñoom ils représentent la le peuple mais peuple fu mu toll dafa mel ni que ñoom dañoo xaw a dañoo xaw a démissionné euh, tey ji peuple boobu la tey ji lan la ñuy xaar ci ñoom parce que Sidy Lamine Niass bu ñu waxante dëggoo si dafa waxoon ne Walfadjri télévision askan wi la bañ na ko sax nee ci wàllu donn moom wal euh, boo boole ko ci li ñu war a donn ci njabootam parce que da ko jël moomale ko askan wi léegi ban taxawaay tey ji la ñu war a xaar ci population bi pour que Walfadjri yi mën a récupérer waat sax ay licence am ah <clears throat> population bi parce que tey nii fii la ñuy xamee intérêt leen benn mooy fans club yi suñu fans club yi <laughs> fii laay xamee seen njëriñ hmm. parce que c'est bien beau euh, ñu fi doxantoog di lii fii la ñuy xamee seen njëriñ. mais la ñu parce que aussi ñu ngi fi woon ah. non xam nga cest que soo déggee ma ne leen fii lay seen njëriñ ñoom tey euh, tey nii ñoom ñoo ne tele bi rajo bi télé bi kenn waru ko Euh, seen patrimoine la ñoom ñoo war a mën a ñëw jàppale ñu mhm. en dehors de cette euh, œuvre bi ñuy ñëw démb mhm. spontanément mais war nañu mën a ñëw def ay plan d'action mhm. pour mu wax ak moom à la face du monde ñun aussi war ñu toog ñun personnel bi war nañ jël euh, en en avant pour le directeur la directeur aussi yow fi nga toog noonu Italie war ngaa ñëw waa ah. war war nga écouter ce séjour. Mhm. moi je l' interpelle directement Tafa Diop tu dois être ici. bokk ci xew tu dois ñëw tu ah. dois être en premier lieu ici avec tes travailleurs. Mhm. qu'on écrive des lettres même dans les missions diplomatiques. Mhm. qu'on clame l'état du Sénégal sur ce qui se passe c'est pas normal. Euh, euh, Reporters sans frontières ñoo ñëpp dañu lay war a bind. parce que ce qui se passe c'est anormal. qu'à l'heure où on parle les partis politiques tamit yéen Sénégal ah am ngeen si tey parce que tey amul benn parti politique Sénégal bu mosul jaar fii wax fi war ngeen mën a ñëw tey wax ci lii lii c'est une atteinte grave et puis j'ai vu même je remercie au passage les organisations de centrales syndicales il y en a beaucoup qui m'ont FM aussi mhm. euh, am na lu ma la fàtte wax ñoom ñu ngi doon teg suñu jëngal mhm. suñu jëngal mhm. moom maa leen di remercier waa Sud FM mais organisation centrale syndicale yi am ay appel yu bëri te fan yi xam naa di leen dégg parce que nee nañ li ñuy teg Walfadjri mhm. c' est anormal te ñoom nañ si jug nee nañ tamit nañuy respecté calendrier républicain électoral mhm. yow yaa doon clamé droit état Sénégal yaa ko clamé état de droit mhm. état de droit passé wul ne da nga war a respecté calendrier mais pas pour ton agenda politique nga reporté élection bëgg a teg Walfadjri lu dul dëgg du yoon lii c' est un kese la amul leneen acharnement dong la teguñu ko ci yoon acharnement la et puis euh, dafa am aussi yoo xam ne nii wolof bi dañuy faral di wax naan gis nga yenn yi boo ko nangoo ñu teg la ko rek c'est parce laa neex aussi mm-hmm. parce que y a des aussi waratu ñoo nangu état bu Sénégal di ko rek di ko teg les euh, les di ko teg population bi seetaan parce que des damay jékki-jékki génn ci dëkk bi ñu dem ci ab localité nga dégg localité bi yuuxu naan dañu am ay jafe-jafe dañu am problème courant dañu dañu am problème état central boobu leen nekk di nappaaje la nga xam ni moom moom la ñuy bokk ñun ñëpp kenn ku ne toog sa kër di nelaw amul sens dama ne kenn ku nekk ci la nga nekk ci nga mën a xeexee ñun média bi ci li ñu nekk ci la xeex mm-hmm. maanaam ñun ay journaliste lañu suñu làmmiñ ci la ñuy jël pour xeexee ko mais am na si yoo xam ne aussi population bi dañu war a jël seen responsabilité waxuñu nag incité wu kenn pour mu wàcc ci mbedd mi mais y a des choses yoo xam ne sénégalais waruñu koy nangu parce que boo demee fu ci mel ni Soudan seen mbuur dañ koy yokk un franc nguur ga daanu nga dem Tunisie aussi benn xale lañ fa xaw a doole nguur ga daanu mais Sénégal actuellement ni suñu constitution la ñuy nappaañe waxuñu dara léegi nag jaay doole googu nag actuellement ni moom moo dem tey ji ba ñuy tëj ay groupe de presse mais bien sûr comme Seydina tout à l'heure je disais que on ne doit pas accepter de se soumettre mm-hmm. on doit se battre mm-hmm. quand tu dis qu'on doit se battre dañ naan kii moom wax yu rëy rek lay wax mais on doit se battre. ma ci la bokk de. on doit se battre parce que si on laisse faire tey jii c'est-à-dire dañu laisser faire laisser faire laisser faire ba si situation bu ni mel lii nag mooy le sommet on doit pas se faire jamono jii dañoo war a jóg au-delà de ce qui se passe. jamono jii à à loolu. mooy reflété tey rek ci yeneen bànqaas yi nga xamante ni jamono jii moo tënk euh, Sénégal ci yeneen institution yeeg yu ni mel mais dañu war a jóg ku ci nekk fa nga nekk que tu sois agriculteur wala koo mën a doon taskatu xabaar ku ci nekk sa waar wa nga nekk war nga faa mën a jóg ne no au delà de jug ne non ñun ay taskatu xabaar la ñu ngi wax ci micro bi mais bu wàccu jotee wala agir jotee tamit dañu war a jug def benn say ngir euh, exercer li nga xamante ni jamono ji suñu constitution may nañu ko. Mm-hmm. parce que nag on le répète. Mm-hmm. Seydina manifester d'abord sax nekkul benn crime mais c'est mais Sénégal dañoo jàpp ni quand tu dis que les gens manifester dañ naan kii day day insister à la résistance day indi fitna ci réew mi alors que nekk na loo xamante ne droit constitutionnel la nga am ko ma am ko euh, Théodore am ko mhm. mais may laaj lenn may laaj ñoom juguñu fi woon waa APR ñii juguñu fi woon benn xëy suba teel ñoom envahir préfecture Sénégal yëpp ne dañuy euh, préfet yi dañuy euh, def rétention carte bu ku ma weddi na ñëw. xëy xëy ñu ko fi def. waaw APR sax def nañ mobilisation taxaw pantal. waaw mm-hmm. waaw mm-hmm. ñoom ku ma weddi na ñëw na ñëw na ñëw toog fii. Mm-hmm. xëy ñu ko fi defe alors alors boobu lan la ñuy def trouble à l'ordre public. waaye nag ay la yowin yow boo xalaatoon lenn la nga doon wax démb mu nekkoon dëgg si yow nga ne léegi li ñuy def noonu du dëgg du yoon. boobu nag trahir nga conscience. Euh, xam nga sax ma li ma si jaaxal mooy. mooy tey jii bu ma jékki-jékki dégg président Macky Sall moom si boppam moom moo jël décision de retirer licence groupe Walfadjri dama pose la question dëggal histoire nga xool TikTok l' ensemble des déclarations yoo xam ne Macky Sall def na ko bu mu nekk moo taxoon. c' parce que au temps presse bi dañ leen tëjaloon seen buntu amuñu fenn foo xam fa lañ ko doon jooyee chaque jour bu ñu amee loolu métti dañ doon seet Sidy Lamine Niass Sidy ubbi leen buntam ba ci moom président Macky Sall maa ngi fàttaliku émission perspective bi nga xam ne def na ko ak émission boobu la sax bokk na ci émission yoo xam ne ñoo ko lancé. Mm-hmm. moom président Macky Sall. mais c'est dommage dañuy faral di wax ne <laughs> non nous saluons Pierre ah. muy star star mu ngi mu ngi ñuy <laughs> décos. Umbaalo da ngeen ne Umbaalo. <laughs> mais mais mais Moussa après Moussa foofu mu ñëw parce que Moussa tey aalo bi moom. Moussa seet il faut mu delluwaat si tey. yeneen affaire la. xam nga xam nga xam nga te yow saa si kay problème problème bi c'est ça quoi. parce que yow mënoo jékki-jékki yow ba nga amee problème da nga ñëw doon taxaw buntu wàllu fajiri di jooy. te li ci gën a garaaw mooy am na ci ay booyam yoo xam ne tey jii. xaaral ma ñëw jooy jooy baala baala aseg naa xaaral ma ñëw am na ci ay booyam yoo xam ne nii am na ci ay booy mhm. mu toll li mu am ci dex kenn xamul nu mu ay récemment onze na ma koo seede di demande à ce que vraiment gars mhm. Mhm. xam nga dafa mel ni que politicien daal du mbokk quoi politicien mooy oto bu wet oto oto yow mi koy pousse ci dugg ba mukk mais man xaaroon naa tey ji Abdoulaye Wade jël décision wax ne kan man damay retirer licence groupe Walfadjri boo ko defee peut-être naa comprendre mais da koo porté Sidi Lamine Niass wax na ko ma ko daan jox ak télé bi ma da ko doon ñaanal di ko génneel sarax mhm. ko teel comprendre mhm. parce que Sidi Lamine Niass moo ko njëkk comprendre mhm. parce que bi Sidi Lamine Niass si boppam bu mu demee quelque temps dafa wax ne kan moytu leen tawum noor la tawum noor rek nañ jàpp ne amul njëriñ tawum noor waxtu woo ko gisee bu yàqul kay du du jur gàncax kon moom moo njëkk avertir na kii fi nekk tey di président Macky Sall ab tawum noor la kon bu leen am ci moom yaakaar moo aussi moom moo njëkkoon wax ne ne ngu kii fi nekk tey di président de la République nañ jàppoon du ay carte moo ko fi jëlee lu buñ ko fi bëggee jël ëllëg il faut que révolution am léegi nag man peut-être loolu si Lamine moo ko wax ñu koy fàttali population mais ak léegi ak lu ci mënti am je pense bien que Sénégal ak fu mu waloon toll tey ci liberté jël groupe de presse bi nga xam ne daanaka tey jii l' ensemble des journalistes yi nekk ci organe de presse yi fi lañ jaar ITV boo fa demee tey jii ña fa nekk directeur ak ña fa nekk rédacteur en chef Walfadjri gi la ñuy jaar. Mhm. nga def RFM la même chose. fii groupe de presse bu fi taxaw tey jii boo fa demee di nga ko fekk élément boo xam élément Walfadjri lañu.